ഒരേ പണം പറയുന്നത് yéen a ngi seetaan Tektal TV di leen dem Hollande nag fekk fa Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye moom mu miinal ñu comme nii ñuy Mamadou Sow di miinale fii fii bu baax a baax a baax a baax a baax en tout cas daal réew mu set réew mu rafet lu baax. baax na ci réew mais nag benn nit mënul setalum réew jomaay woote na set setal kon nga naan fii laa bokk ak fële laa bokk yooyu yëfu dof la set setal sa réew nangul mu set ndax gis nga réew bu setee rek dañ lay respecté kenn du ñemee taxal mais bu ñu fekkee nga tax rek dañ lay ñemee taxal bu baax a baax a baax a baax kon set lu baax la ci réew na ñuy sol lu set di wax lu set di def lu set ndax day gën a baax. waaw léegi commencé na. jërë ngeen def mbokk yi seetaan gërëm nañ Ibrahima Samba Diop ak Soxna Maya ñi ngi fii ci Domba ci Cologne ànd ak Mamadou Sow mu doon réalisateur bi di filmé ànd ak Ibrahima Ndiaye bu Olanus ànd ak waa Tektal TV docteur ngeen fii ñu leen di war fii ci Allemagne mooy fii ñu jóge ñëw na dañ bëgg di wër àddina bi di leen won loo xam na que lii yeneen dëkk loo xam ne que baax le nañ ko te royukaay la pour ñu ñu am ko parce que fii nii ñëw ci Cologne rek daanaka moom mooy central boo xam ne euh, euh, comme création ñu mel noonu bu baax a baax gis ngeen fii ak nit yi ambiance bi mu am Allemagne day wét mais fii da ngay gis que ne carrément da ngay dox tranquille tegtal bi dox gis waa yi nii ñu topp ñu ñu wane spirit tegtal bi ñu def lépp lu ñu def da ngay ànd ak qualité ngeen am yaas bi nii gërëm nañ waa Cologne yëpp gërëm nañ aussi Allemagne famille d'enfants France Sayer Fall Espagne moom Galicia Mohamed Ndiaye échangeur ñi dañuy dox ci biir nit yi bi topp baax bi bu baax a baax a baax ñu doon seen boo xam ne que seenu diaspora la diaspora bi dañ ko bëgg gëm ko gërëm nañ tamit euh, suñu benn xarit Assou Gueye nekk fële ca Italie ak suñu xarit bi Milan euh, mooy Sakho gërëm nañ ko Mor gërëm nañ ko Ousmane Fall fële ca euh, Milan ak ñi nga xam ne que euh, Yacine Tabar ñi nga xam ne que bëgg nañ Tektal TV ba ak maire Oumou Diop ñi nga xam ne bëgg nañ Tektal TV Adja Diop gërëm nañ ko rakku Diarra Diop maire Mangou Kane Abdou Khadir Diop basketteur Qatar Mohamed bu mag gërëm nañ Oumy Kane Oumy Kane borom këram di Amsa Diop di yaay Bamas ak Mandaw ak Cheikh Abdou gërëm na ñiy bëgg Tektal TV bu baax a baax a baax seen la boo xam ne que logo bi bu la blanc rouge la bu la blanc rouge boo bindee YouTube Tektal TV wala nga bind Cheikh Talif rek dañ ñuy gis ñu indi ku ne tey nag ñu ngi ànd ak seex Bara Ndiaye euh, moom dafay sonn di doxantu mi ngi benn côté bi ndax fi mu yëgoon sànq foofu néew néew maîtrisé gërëm nañ Kati Diop ak Sidi Mokhtar ak euh, soxna Mati lay maître ak. Euh, Euh, soxna May gërëm leen ñoom ñëpp bu baax a baax ñi bëgg Tektal TV di wat leen loo xam na bu ngeen di seetaan Tektal day neex te Tektal TV dinañ leen indil affaire sport indil leen yu rafet yoo xam ne que da ngeen koy seetaan di bëgg gërëm leen soxna May Diop euh, ak euh, bébé Zeynab Diop ak sëñ Fallou Mbacke Diop gërëm leen soxna Marème Diop ak sëñ Mbacke soxna Mariam Diop euh, Mbour soxna Bintu Sey gërëm nañ ko Abdou Fatah Sey gërëm nañ ko Tànday Sey di Tàntay soxna May gërëm nañ ko ak Jekk euh, Sey ak Ami sëy ak waa Ngeen Sey yëpp gërëm nañ leen bu baax ak benn xariloo nga xam ne day toppatoo mbirum Touba ca kanam di yaayu soxna Bintu gërëm na sëñ Diop euh, ca Ngaye Mexe jàngalekat alxuraan ak Kër Matar Diop Mame Aliou Diop gërëm na ko ak euh, waa Ngaye sëñ Cheikh Na Diop ak El Hadj Bàcc Diop ñi bëgg Tektal TV di ñu ñaanal euh, Pa Seydi Diop France nga xam ne rek dal gërëm di fa def lu neex bu baax a baax gërëm na ko bu baax a baax bu baax a baax donc hmm? Tektal TV ah, ah. trois minutes waaw xewal dikk loraa ngi nag ñu wanaat leen leen ci Tektal TV topp leen rek bu leen li man mooy découverte wan leen loo xam ne di ngeen gis ne lii ko ko am ci sa réew baax ndax ku ko am fonk ko tam nga gën ko fonk baax ndax tubaab yi boo demee réew moo dem rek da nga gis am na lu semboo loo xam ne day mel ni lii domaine am la moo ci raw ñëpp ñun ne nañ fexe am loo xam ne dañ ci ñëpp lu baax pour suñu gën a dem njiit yi ñu am léegi nag xel dal na ci ndax li tax xel dal ci nekkaluñ fi seen bopp askan bi lañ fi nekkal koo xam ne dafa bëgg réew mi baax ba kenn du ko jéggaani dem faneen bu sooba yàlla nan góor rek te jàppale leen doon wenn say te xam ne mu yàgg ak mu bañ a yàgg defe naa premier mandat président Diomaye Faye beeg président Ousmane Sonko dinañ am loo xam ne que Sénégal koo xam ne kenn dootul jël gaal naan da ngay dem ngeen bàyyi xel moytu gaal yi. gaal booy dem koo tàggu allez-y koo tàggu mu bàyyi la sa noon la koo dem di tàggu naan ko da jël gaal rek koo yeb la kon ñu bàyyi ko. am na ñu nekk fii Europe mbir yi métti lool ci ñoom mais Europe faju geeg yooyu ay avantage la mais problème bi daal jël gaal di ñëw du yoon dajale sa capital ñëw Europe tamit du yoon da ngay am métier. boo xam ne que togg nga yoon wi ba gis ne lii mën na laa jariñ nga soog a ñëw toog fu la mayee visa bu jeexee dellu boo bëggee boo demee ba gis lu jar toog nag nga xam ne lii jar na ko da ngaa gas ba ren fey kon tubaab bi daal li ñu rawee leen la mooy nangoo liggéey ndax seen maam yi danoo liggéey ñun suñu maam ñen ñi naan njariñ loo fekkee loolu déedéet dangay ngay defaral say sët ngir ëllëg ñu mën ko jëriñoo ñii nag liggéey lañ seen i sët fii sax booy ñëw da ngay am na looy participer pour mën a yëg ci kaw ñun nag yéeg nañ mais liñ daj gis nañ ne fii moom xam naa dañ koy jéggal ñi ci des daal ndax ñun àndal du ñëpp ko man kon Tektal TV découverte wan leen loo xam ne que lu bees la lu raar la te loo xam ne que Sénégal war na ko am ci lu baax ndax tubaab yi yàlla wàccul defaral leen seen ñoom ñoo ko defar bu baax a baax maam yi dañoo defar bàyyi defar doom yi defar sëdi dañuy defar ëllëg kon nag góorgóorlu li liggéey te bañ a yàq jaajëf Tektal TV Cheikh Talif ànd ak Cheikh Bara Ndiaye ak Ibrahima Ndiaye bu Hollande Cheikh Bara ngi nii dafa mel ne jóge na ci fi mu yéegoon nii wane ko day noppalu tuuti ko bu baax a baax soxna Kati Sarr ak Diop Sarr ak Cheikh ñoom Ba Tall ñëpp ñi koy jàppale ci liggéey bi gërëm na leen xewal dikk loraa nga dakk ak Tektal TV Mamadou Sow réalisateur bi Ousseynou Ly ñëwul Matar Sawre ñëwul waa yëpp gërëm na leen lii daal kontaan nañ ci bu baax a baax dellu gërëm nit ñuy yokk dooleel la lépp bu baax a baax a baax pour ñu mën a wane lu baax ku bëgg lu baax rek kaay fii ci Tektal TV jaajëf Tektal TV gis ngeen ba léegi. fii moom pour wan leen loo xam ne ko que boo gisee ni mel. instant bii maanaam entraîné bu ñu koy wax lii la ndax ñi ma àndal. defe naa ñu bari mi-temps 533. mars 533 mars moom nga yëg lii lépp affronté nañ ko ci Tektal TV. 153 mètres Baye Massamba Diop. Petit Sow docteur Wade yi ñuy jaay entraîné lii koomul condition du ko man lii ku gaaw a xat bi du ko man kon Tektal TV daal wane nañ loo xam ne que tubaab yi nag xam ma luñ ci jublu waroon na ma am ku ma ko expliquer parce que lii ñu waroon ko def ascenseur yi mu noppal nii ñi ñu def koy escalier nga di ci jaar metti na trop kon ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax. allez. jërëjëf mbokk yi seetaan Tektal TV ngeen fi nekk ñu ngi ci askan ba léegi ci doom bi mais ñu ngi leen di fi war lu doy euh, ne kii nu mu tuddati joxe xeetu andi xeetu. participer xeetu lu mel ni siyaar euh, ndekete àdduna bi organisé wu na bu yàgg ay at ñu ubbeeku di wane loo xam ne que euh, ay royukaay lay doon ay tabax yu diire lu yàgg nit ñi ñëw di visiter di joxe seen xaalis mu mel ne siyaar da nga doon jàpp ne ñoom rek ñoo am mais ndekete ñeneen am nañ ko ci beneen facette bu defee moo xam ne dafa moderniser te lépp day yokk seen réew yokk seen xam-xam ku ci soxla xam-xam rek da ngay gis ne lii ay idée la te boo duggee Google rek def ko da gis li fi nekk bu baax a baax fii li fi nekk ay idée la yoo xam ne ko royukaay la te boo ñu toppee ñu dem ci kanam wanaat leen leneen gisoo yëpp pour archive yi la duñ fi fekk lu doy waar kon Tektal TV xew a dëkk loolu lu baax ku ko bëgg rek topp ñu Tektal TV chaîne des valeurs seen boo xam ne ci lu baax rek lay dox ak wan la nga yokk xam léegi entraînement de motivation <laughs> mbokk yi seetaan Tektal TV bu baax bale ba léegi ñu ngi ci Cologne ci biir Allemagne te gis ngeen euh, lii dafa doon loo xam lu symbole la lu rafet la lii maanaam dafay tekki ne boo demee suñu këru diine yi sax euh, di nga gis ñiy siyaar foo xam ne que da fay def sa alal alal bi nag du dëng leen di jox luñ amul du da leen di jox pour yokk mais dañu bëgg bu dara taxawee mu doon lu rafet boo koy xool ëllëg nga gis ne lii sa participation mi ngi ci mu lu rafet parce que yow kese mënoo ko defar te bu buñ ci euh, xaaja buñ ko yaatalee ba ku ne def ci bu demee ba taxaw ëllëg di nga gis ne fee sa ñaq dem na fa lu mu doon luy rafet ci réew mi bu dee doom ji tamit gis na dina xam ne sama papa def na fee dara moo tax sanru lii du force mais yéene ngay ñëw rek def ci sa alal pour mu doon lu symboliser lu rafet comme dun wax addiya duñ wax may duñ kii mais dafa doon loo xam participation la comme par exemple Ousmane ko li mu waxoon ne Casamance bu nit ku ne joxee dara bu mën na doon at bi temps mu jur temps façon yu mel noonu quoi kon moo tax bu ñu leen di woote ci réew mi rek pour lu yaatu rek bu leen xaar sax ñu wax leen ko xool leen na rafet rek ngeen def ko ndax tubaab bi sax ñii ni di ko def comme nii leen dëkke te kenn du fi sàcc ci kenn du fi def dara kon lu baax ak Tektal TV lu mën a kii topp leen lu rafet luñ gis rek lu baax lu ko jar rek ngeen gis ko jërëjëf ak équipe bi ñu àndal bu baax a baax jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan Tektal TV bërëb bu historique rek dinañ leen ko wan ngeen topp ñu bu baax a baax a baax wan leen loo xam ne dina neex ci seen bët dina yokk seen xam-xam ndax lan la ay imo buy def lu war a mat euh, tabax yu def lu war a mat junni at te yàquwul loolu royukaay la te ñu bari di fi ñëw di visiter di ñëw di xool nga xam ne que fii sax boo fi dugg doo sol mbaxana loolu yëpp lu baax la ñu di ko xam bu baax a baax war ne almaañ yi moom kii almaañ yi moom ba ñu jóg du léegi te royukaay lañ ci lu bari ci def ci liggéey. ak farlu ak bañ yàq kon suñ maçon yi ñu roy ci ñii suñ architecte yi ñu roy ci li defar loo xam ne que lii bu taxawee dina jur économie dina yokk xaalis te dina doon loo xam ne que souvenir la bu dul jeex xam ni Mamadou Sow lii lu ko dafa rafet boo xoolee xam ne dafa rafet façon yi mel noonu gis nga ko façon photo yi ak ni mu aaree nga ñëw gis yi yi dafa aaree luy mel ni xool lii day mel ni yenn barabu yenn kilifa yi sax day xaw a nduróog moom gisoo nga ko nii nga xam ne que création la Euh, almaa yi daal foowu kon fi gis ngeen fii li fi nekk gis ngeen euh, k ak seen blouse yi ñuy sol bu rouge bi rouge noir ak sondeel yi niñ koy taalee fii daal gis nga lu rafet nag ci Tektal TV ñu wan leen lu baax a baax a baax a baax ñun liñ bëgg mooy fu dem wan leen fa loo xam ne bu ko gisee di ngeen yokk xam yokk euh, ay idée suñ artiste yi gën a góorgóorlu Père Goudiaby Atépa ak ñeneen ñu mel noonu ngeen di xool li am ci yeneen réew yi nga xam ne que bu ko Sénégal amee dina gën a jëm kanam Tektal TV Mamadou Sow mooy réalisateur bi fii ci Cologne ak Ousseynou Ly moom sori na instant bi Matar Sawure Moustapha Mbaye ñëpp a ngi ni daal ak Tektal TV ñi ngi ànd uh, ak Cheikh Bara Ndiaye di dévaler visite di xool di wan loo xam ne que mi ngi ni daal kon fii daal gis nga ne da ngay xool ba sa bët yem mais li nga fi gis lu lay yëm la lu kii la gis nga fii dafa rafet ba nga xam ne que rafet na Tektal TV moo leen koy wan kon euh, ñu ngi gërëm waa almaa yi bu baax a baax gut dànka gut dànka euh, almaa dëkk dëkk la boo xam ne que daal ci dëkk yi ëpp njëriñ la ci àdduna bi ndax dañuy am doole te duñ ko jaay te dañuy nangoo liggéey ak farlu kon Tektal TV xewal dëkk loraange dakk ak Ibrahima Ndiaye Hollande dinañ dem foofu tamit wan leen leneen lépp loo xam ne ko daal bu buñ ko wanee ngeen gis ne dina leen yokk xam-xam rek dina leen ko def ak Tektal TV jaajëf tout à téyoon waaye gis nii ci Google bi. Mm-hmm. def nga ko woon mu gis de oui mooy filmé. Cheikh Baara Ndiaye mu ngi nii ci Dóom Cologne. waaw lan Sénégal ci li ngay gis fii gisoo ci idée ba wala ñu bàyyi noonu du wax kaw. bu yàgg la daal. yoo xam ne